thank you Senegal es un lugar tan lento de jërë ngeen jëf euh, la famille ñoom mbégte dellu si waat fës ne séq yéen waxtaan nuñ koy defee rek cat ba cat cat ba cat cat ba cat ñi ngi nuyu ñëpp ku nekk di la jox sa wàccuwaay jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo ren bu mu wasaare ko sur la famille di waxtaan yi ngeen di am ci biir panel bi am na solo lool may waxtaan ne loolu sax mu ëpp njariñ ci panel defé na naa waxtaan yeeg si yi ngeen di décortiquer <laughs> dégg naa reetaan yu metti ngeen ré pap Amadou ndjay c'est pathétique hein ko ko <laughs> wax c'est pathétique c'est pathétique hein waji ji nee na kon dañ di sédde légui ñun ñoy sédde né e day gëna a c'est pathétique hein ah ñing ci 900 membres Arona yaa ñu ko wax ñu ci 900 membres 900 membres loolu amna solo mais c'est pathétique ah ba ma gisee vidéo pap Amadou Ndiaye bi ren mère ren mère vidéo bi gis nga ko demb <laughs> demb démb doy na waar doy na war day la war doy na waar comme daal ñoom japp nañ né légui fallu dal séddoo motax tay ñu proposer le une lecture décalée manam wala fi dañuy faral di wax na buy taw kenn du fobeere Saar Maroc ñu ngi lay nuyu <laughs> aaroo la <laughs> euh, waaw tey nag moom defe naa vraiment daf ñu woote nag woote de ah, allo allo woote wuñ de ñu may ñu dawal tuuti allo. waaw ok amul problème. waaw ñu ngi lay déglu waxal sa xalaat rapidement parce que te moom woote wuñ dañuy ñëw rek dawal xam nga doog a tàmbali. bon man moom. li daaw fàcc réew mi la quoi franchement je suis tellement déçu que je ne je ne vais plus à sortir dans mon quartier. ah da nga am li daaw fàcc réew mi da nga am déception. bu rëy rëy rëy sax. ah da ngay dem feneen rek da ngay dem feneen rek. waaw d'accord allez bon ñun ñu ngi continuer xeex pour Sénégal ñun bu bàyyi politique voilà ñun bàyyi nee na dafa déception <laughs> moo tax bu teel a waaw tey moom dama waxoon ku wootee sax du ma damay il faut que ma proposer leen une lecture décalée parce que wolof yi dañuy faral di wax ne buy taw kenn du fobeere da ngay bàyyi ba mu semaine nga doog a fobeere mu jot nag ñu war a def ay jàngat xool président Macky Sall bu baax a baax a baax mais laata loolu. jox naa leen autour du micro Moustapha Diakhaté jàng naa ci ñaari mbir neena na ma Macky jikkoy mbëtt la yor ma ne ko luy jikkoy mbëtt mu ne boo ko féetee ginnaaw mu ne ci kawam nga jëm boo nekkee ci wetam mu ne lu tax nga koy diir mbagg boo boo jiitoo ci kanam mu ne lu nga koy jiitu moom rek moo bëgg a jiitu dinaa leen won Macky Sall nan la té né jikko mbeut la yor manako ak ban jikko yi xal la yor ni xal la mel manako tax mun dermi day vert lol di couleuru l'islam vert bi boko xaré mu xonku curu ci bir manam deret tay nak dañuy jangat président Macky Sall jangat bu xoot mais gis ngeen vidéo pap Amadou ndjay toj na fi du mom rek ney sali man lima jaxal senegal moy dañ lay fal ministre mu wara a doon yan bu 10 bu né euh da nga fassiyene liggéeyal askan bi bu nekké né yow mesure nga mesure nga né yow da nga wara liggéeyal askan bi sonu seeni jafé jafé normalement sa xel warul nekk ci mbumbay ak badaxal ma da dedet waaye ñu fal la mi ne nga gis leen ñi mbaboor ñuy mbaboor nga jóge fa man sax dégg naa soxna Aysata moom ma nga woon ci yooyu tamit donc da ngay mesurer ñoom ñi ñuy teg yenn bi sax amuñu personnalité bi ak ngëm-ngëm bi nga xam ne ñoom xam nañ ne li leen yen dafa diis ak réew bi fu mu toll kan moo fi war a ter ay pàccangaat dégg nga Pape a Ndiaye wax léegi kay ñun ñoo doon séddale séddale bi day gën a yomb rek ah kon dañuy séddoo lan la ñuy séddoo mais nag Macky mooy président de la république ñu baree bari démb dañoo choquewu ci mbiru xaalis bi nga xam ne di génn na ci ralliement bu Idrissa Seck ci président Macky Sall ñu ne xaalis bu bari kii sax wax na ko mu Diakhaté nee na saako bu vidd la woot Macky Sall yépp ci li mu war a mën taxawee manam ralliement ci Macky Sall koppar la malgré discours bu ñu wax lo ñu mom soldat la war doon ak devoir lool yëpp ratatat loolu mom moy discours de circonstance argumentaire bo xam war nga ko mëna def pour ni ñi mëna rafetal la nga def parce que de dafa am yo xam wax nga ko fi yu bare bare ñu tak mu dañ gis naa xale yi defal ko ci ay rab yu nice du ma ci dellu sax ku dugg ci réseaux sociaux yi gis ko amul njariñ mais jàngat biñ ci war a def laay bëgg nu xam xam nga mooy lan seetluwu leen benn mbir saa bu ñu tuddee li nga xam ne moo di fond politik néew na leader leader yuy wax ne nous voulons la suppression des fonds politiques leader yi nekk ci parti interviewé leen yéen a ngi fàttaliku lu tas AJ/PADS diggante Landing savane ak Mamadou Diop de Croix lu 30 millions yeneen wàdd doon jox Landing savane kay suba teel na day doon candidat taxaw di wax Mamadou Diop de Croix dem ànd ak moom weer wi dee mu dem di jëli wàdd na ko naa addeet ah, yow ko da ngaa demoon nekk candidat keneen laa hmm. koy jox gars yi bu ñu bindee benn yoon tamit doy na jëru ñuy polier li nga xam ne moo di cas bi ñu waxtaan ci waxtaan yu positif voilà mu ne ko yow looy looloo indi moo tas yaa yeneen fàttaliku xaalis boobu kon coowul xaalis ci fond politique yàgg na trente million yeneen fàttaliku de croix ñëw toog pale landing sa baana ñew tok ñu nga landing comme yow da nga sampul sa dënd kay ne da ngay jakkar lok ablay wat kon mëno wër warul dé moy taw kap 21 ya. bañuy wax ne dañuy jox parti xaliss lolu mo leeni won mais ngeen fokk ne Macky Sall dafa tok nonu rek ak benno bokk yaakar nonu rek mu yomb non non néew na nga interviewé leader laaj ko na ko mais fonds politique yi est-ce que mënuñu ko rationaliser xam nga dama leen wax benn mbir tamit ci secret ci Idrissa Seck mas naa dem RFM Alassane Samba Diop posé ko question mu ne ko woy mooy histoire u chantier yi Thiès ba coow li bare mu ne leen wooy est-ce que c'est normal que fonds politique président di ko yor bu matee sept milliards bu ko neexee sax taal almet ki te kenn du ko raw mu ne loolu ba koy wax dafa

kon ñu gis nga ñi président de la république politique yoyu mu yor lu ko neex mu def ci rendre compte kenn du rendre compte kenn da koy utiliser pour contrôler xolal espace politique bi espace religieux bi médiatique ak benen ak syndicat yi il utilise les fonds politiques pour ça parce que du bàyyi trace xaalisam lu ko neex la ci def te xam nga maki mom amul idéologie ben idéologie la am ni ko Moustapha Diakhaté waxtaane ak tay nee chompal chompal maki ben idéologie lam chompal xam ku dem yow da ngay euh, opposant dama lay ci président de la république bo ci démarche ci scrupule de moralité da koy teg bu bëgg atteindre objectif amul lu mu ciy ragal amul lu mu ciy daw amul lu mu ciy tax amul lu mu ci jomb jaral na ko rek da koy def kon liñ leen wax ci Idrissa Seck dina leen ëlëm naam dina leen jaaxal naam mais lu mën a nekk la te lu nekk la nag parce que xamul tax mën a lu nekk la ah parce que xam nga nit ki boo gis train de vie mu xaw a soppeeku tuuti tuuti ah, di nga xam muy politique yi nga xam ne moo nekk ak yeneen ñu koy ko jox da koy jël pour contrôler l'espace politique fa lay dundalee ay nit di leen jox di di jox idéologie je contrôle non la contrôler pratiquement les partis politiques Benno Bokk yakar ñu buñu yappa dégg LD yu nekku ci parce que tàgguñu leen sommes a xam yéen xam parce que ñun réew mi nekku fi ngeen di paajoo ay poste yi xam dégg Nous sommes. wax na way on va réagir ah, LD LD dafa Nous LD LD LD couché Nous sommes. xam gars xex Nous sommes. dama leen ñaan la famille de seetaan leen ceetaan leen ci nee leen kàccet ku leen wax ngeen ne génn leen ci bam so suñu yoon newu ci kon ngeen jàpp ne l'argent est au cœur au dispositif de ñoom ñëpp a xoox te loolu la xam te Macky Sall dafa ay ci loolu gis nga ba ñu jëm ci élection yi ñoom ñëpp seen compte bancaire yi da ko doon surveiller laajal homme d'affaires yi nga xam ne dañoo nekkoon xaritu Khalifa Ababacar Sall 2012 ba Macky Sall di falu Khalifa Ababacar Sall boole leen ak Macky Sall ñu jàppale Macky Sall xaalis gis na ba mu waajee ne day tëj Khalifa Ababacar Sall ñoom ñëpp redressement fiscal leen jox ba pare woo benn par benn ne leen ku ci yëngatu gis na lim doon toppee Khalifa Ababacar Sall. am na benn xaritu Ababacar Sall bu ne ko président euh, Macky Sall bu nekkee ne lii ngay toppee Khalifa Sall mën naa la ko fay nga bàyyi ko mu ne ko déedéet dama koy tëj ràpp ci biir kaso bi loolu tax ma ne la buy def amul scrupule amul moralité amul jomb-jomb l' essentiel que l' objectif soit atteint point barre na rafet na jekk na yiw yoonam newu ci lépp mbiru xaalis donc lan lañ wax ci Idrissa Seck xel mënees na koo nangu bu baax a baax a baax a baax beneen mbir bi ñu am président boo xam ne xam nga wax naa leen président boo xam ne moom loolu amu ci ay du ci werante beneen mbir mi ñoom un président politicien waxuma homme politique politicien politicien Macky Sall est politicien c'est pas un homme politique c'est un politicien Macky Sall bu la xool sax politique la lay xoolee buy wax politique lay wax discours lu wax tout est politicien chez tout tout bo xamné ne man ko wéer mom ci yor rew mi ci ay slogan politicien bo dafa ay politicien un président politicien slogan rek xam nga dañuy wax ne Macky Sall dañu dañ leen jaaxal parce que saa boo wax rek référence lamb lay def moom loolu la jàppee yorum réew mbërum lamb la au roglo dem na xolum o fañi fañ wa wàccaaca au roglo dem na xolum o fañi fañ wa wàccaaca au roglo dem na xolum o fañi fañ wa wàccaaca waa wacaaca wacaaca googu nag ah li soxal Macky Sall matin midi soir mooy neutraliser ba neutraliser ay alliés déggu leen ma de li soxal Macky Sall matin midi soir mooy day neutraliser ba neutraliser ay alliés xool leen biir benno bokk yakar musafanya, mustafa Niass loolu tax mané ne billahi dembana du wess cat du wess dem ba nako xolat xoolal wàccaacaa nako assemblée nationale lu ki wax mu ne ko nax mu malgré son parcours malgré la mu def ci assise nationale malgré lu ñu doon ñun ñëpp nako ci assemblée nationale lu Macky wax mu ne nax nu kazaalika fii la taxaw na ay benn du ma jaar ci loolu benn salo benn MB loolu yëpp du yegg ci wax te nag Macky Sall bu ko neexee mu bàkku wàccaacaa bu neex a neex a neex waaw ana Moustapha tër na ko Benno Siggil Sénégal parti socialiste xam nga mooy parti socialiste yéen a qualifié leen ada parti socialiste parti socialiste anam amin de mbeg mooy xëjoo sëriñ mbay càmm xam nga loolu bañ duree jàmm nga jóge foofu yàlla na fam tanor yàlla na xippee aljanna Ousmane Tanor Dieng la fa desoon xoolal parti socialiste ñu mën a tëj ñaari at Khalifa Ababacar Sall amul kenn ku am fit ci biir responsable parti socialiste dem seeti ko wala du dem sax raam ci Macky Sall ne ko ñu li lay war a sóoli dimbala ñu jox ñu autorisation dem seeti kenn sañu ko woon seeti ku ko seeti woon Macky Sall rëq sa ndig dama leen woon comment Macky Sall amu ci sentiment sadik machiavélique ana gaajo Cheikh Tidiane gaajo mi doon wax de ooy transhumance ana Souleymane Ndéné li ma leen wax dama leen takk leen laa leen wax lecture décalée laa leen jox maa ñëw ci gouvernement bi pareeguma ana gaajo ana Aïssata Tall Sall ma daan wax ne PSE lu ne wax na ko émission mu ne def naa ko mu nekk sama xarit nag xam naa ko baax ba ba mu rallier xam nga ñoom bu ñu rallier dañ lay daw bu leen dàqee nag comme am <laughs> am na ñu seet fi mu nekk ñu jéem a nekk ay xarit di la jéem a envoyé message cooki leen cooki leen sama yëpp lew ci ak a neex dëkk bii dafa leex ana Aysata Souleymane Ndéné wax fi wax bu rëy fi transhumé dañ la war a fusillé bu doon fusillé moom dee na bu yàgg fi daawu nañ ko ayca ñu wëy <laughs> ku ci mujj Idrissa Seck xam nga nee naa leen Macky dafa mën a suul ndaanaan mais ginnaaw suul ndaanaan yooyu xam nga lan moo ci neex ñun sénégalais yi léegi nag bu ñu dof nañu xippi xool ku wax ñu ah comme ni ngeen ko defé var var len ba mu neex e Moussa si bay leen ñu ay nee na jën la ñu jën jën xam var len leen ñooñu ba mu neex wax yu reuy lañ fi wax xam nga damay wax sama bel xarit ma ko démb ko na ma dimanche ba mu toge keur jakarlo toog ak maram fay sal rek ci sal xool Idrissa Seck dafa ree ma dem <laughs> wàccaacaa naa ko de <laughs> sa waa ji ko wax ju rëy moo doon wax ngaaka la ngaaka bi wàccaacaa na ko dara ay bi président yow kay doo seen morom waaw waaw <laughs> Macky morom yéen yëpp yéen ñëpp di wax Macky wàccaacaa na leen xam naa moom moom moom leer na ma ne

ñoom ñëpp xam nga des fois ay ree boo koy jàpp su ma xoolee di analyser situation bëdd ay waay te tey jii ñu dem ci ba nga xam ne waa am nga yéen suba bu neexee bu neexee Macky Sall bu dàq Idrissa Seck l'avenir de Idrissa Seck fii la nekk ci signature Macky Sall xam nga loolu dafa doy waar comme ndax comprendre ngeen li ma la wax ko fal bi décret bi ku ko lire Seydou rek lañuy ñuy defaat ne il est mis fonction fin aux fonctions de <laughs> président du conseil économique et social comme ni ñu def Aminata Touré am Aminata Touré moo fi mëgoon nekk nu mu tudd Ginger euh, defe naa mooy guerrière boobu euh, xaw ma nu mu ko doon wooyee euh, Zeyna la guerrière fu fu Idrissa Seck tëllee mu commencé ratatatatatatatat Idrissa na pat fu ab bu may waxee mun a ratatatatat mu ne pat Idrissa Seck yoxosu ko tey ji dàq nañ Aminata Touré kan lañ jox place am Idrissa Seck mu doon xas waaw mais Idrissa Seck war laa xam ne ginnaawam war na tàng mooy Macky Sall tey jii il a l'avenir de Idriss Seck entre suba teel la ko dàq naa la Idriss dàq naa ñaari ministre yëpp dàq naa la décret laa leen la koy wax xam nga xaw ma ndax yéen a ngi comprendre li may waxee point ba Idriss di wax le ñu moi j'ai dit au président yooyu du fi amati ne c'est fini Idriss Seck wàccaacaa na leen dama ne Macky Sall ñëpp dàq na léegi nag mu des ak ñun ay nitam noonu la leen di def léegi nag mu des ak ñun ñun sénégalais xam nga la pour moom xam lan la ñu naxee ay slogan yoonu yokkute ñu dawal un an. mote kufule pesa penega se plan sénégalais émergent la patrie avant le pacte gouvernance sobre et vertueuse fast track essayez de ngi xol li maki créer ay slogan puma der est ce que yene ngi xol li maki sall créer ci ay slogan lepp der xam nga ba kilifa bu tëdd di tuur ndox sa bopp ngay njëkk a tooy tey ji loolu yëpp nga dégg gouvernance sobre et vertueuse est-ce que gis ngeen ko ci réew mi 2012 ba 2020 bii nga nekk nañ ma génneel lu toll ci tarfatul ay ni lo xamne ci matière de bonne gouvernance maki jaaral ko maki moy samp structure yuy xex pour bonne gouvernance ba pare mo leni xass mo leni tek fitna ba ci of na cour des comptes ñent at genn wo rapport ARNT ka fa nek retraite na bu yag magana duma ko fa dind lu ma neex lay def sayarna ñaari mandat d'affilée am na wala amul nee naa ko du la inventel yow damay jéex rek daj yoonu yokkute ñoom yokku nañ seeni doom yàkku nañ seeni njaboot yokku nañ nanga nga yam xaalis di ko rawale émirat arab ak dubaay looloy dëgg xool leen oto yi ñuy dawal moo tax Pape Amadou ñaay na leen léegi dañuy séddoo day gën a yomb <laughs> waaw culture boobu la ñu am gis nga voilà culture gestion culture de loolu état d'esprit état d'esprit boobu la ñu ñoom seen njaboot yokku na kër yi ñuy tabax laa yow mi ni yaakaaruñu woon am ko sàcc gi ñu nekkee xam nañ ko ñoom xam nañ ne ñoom ñoom Macky Sall moo la gën a xam xam nga loolaa Macky Sall du bay bayal moo la gën a xam ñuy sàcc moo la ko gën a xam mais yoonam nekku ci mu ñëw nañu fast mu mel ni gouvernement 2012 mu ne day supprimer poste premier ministre def un gouvernement fast mu samp gouvernement après présidentielle yi yi mu mu wax ne moom moo ko gagné. gouvernement bi ngiro ngiro ngiro kan moma wax mana wax avril 2019 ba li nga xamne modi novembre 2020 lan la ci gouvernement bi liggé dam ko sampé ba tay ñata nekk sax da nga leen xool ñu sax bopp nitu ministre bopp ma dafa am ñoo xam ne da kon bopp ministre da nga leen di compté der entrepreneur rapide fi laa leen toog nga ne entrepreneur rapide amul ma ne leen entrepreneuriat rapide amul ren maire war nga ci xam dara ya nga yëngatu financement rapide moo mën a am mais entrepreneuriat xanaa dina yàgg nga mën a amortir loolu yoon kon Macky Sall dëkkee ñu nax ci ay slogan fex na daf ñuy nax fex faalewuñ ko sax xam nañ ne slogan yi day théâtre rek xàll leen yoonu daara bi gis naa théâtre boobu day théâtre rek nga jóge fa ay rêve lay jaay Sénégalais yi teer yow amul courant bu mat di teer courant baa ngi ni di coupé ma ne teer mais non, attends, insulter l'intelligence des Sénégalais. dundu Sénégalais yi lan moo ci soppeeku lan moo ci soppeeku Mom nañ ko wax bourse familiale la wax de couverture maladie universelle dañuy résister comme perfet couverture maladie universelle bourse familiale loolu la ñuy wax ratatatatat ñu nekk ci réew moo xam ne dañuy dil contrat yi ñu contrat yi fexe ba suwee delu ci fi ñuy tong tong laan di wër ndox fii ci du sénégal ndox ay toog ñetti fanu yàlla doo am ndox boo waxee mu ne wooy euh, piment bi ak PUDC war na tax ñuy ndey forage mais Dakar ñun amuñu ndox d' accord naa yóbbu forage lu yoon la Dakar amuñu ndox li ma leen wax dama leen ngeen tak dem vérifier ko xool li ma leen wax nga ñuy jaay taux de croissance 6,2 kay waxatum taux de croissance indice de développement sax la ñuy wax léegi waxatum sax ay taux de croissance taux de croissance boo xam ne entreprise yu koy porte yépp dañ koy yóbbu li ñu am yóbbu extérieur moo tax nga jóge def da ngay jóge taux de croissance de 6,2 covid ñëw rek nga na nga yegg si 0,2 pour cent de 6 à 0,2%. Malgré ñom pluviométrie bu baax wala agriculture bu baax te agriculture bu ci defoon lan ca waron def mo waron tirer ñun sun croissance parce que dañu wax 60 au moins les sénégalais se nourrissent de l'agriculture. est ce que lañ ta war def ci matériel ci intant ci semence def nañ ko ngir jappalé ñi nga xamné ñoo di béykat su la gaay wax yoy tay kan mo ma mëna wax su la gaay amna len der est ce que taxna xalé yi jëlutun loco yi di dem bu nekké kay war nañ mëna entrepreneuriat ba jox xalé mu ñu créer emploi né dañu jox ay nit emploi xana nak xalis bo war na dugg fenn ik ta xalé yi jot nañ ci ba war ko tass def ci ay financement ak man naa ci doute parce que su ma gisee nii lii di immigration kan ni mu jikkee ba siècle ni bëpp dal suñ kaw espoir amatuñ ko il ne rêve plus de rester au Sénégalais de rester ici au Sénégal faut être sérieux lan moo soppeeku ci emploi des jeunes lan moo ci soppeeku lutte contre la corruption lan moo ci soppeeku am na état de droit damay laaj moo fi soppeeku équité est-ce que nguuru Macky Sall am na ko maanaam daal on communique sur du sable mouvant bu ñëwee dajale mbaba waram gi ensemble liiri ga mboo xam wax waay wacaca wacaca waay c'était fait en temps donné non sénégalais yi gis nga boo ko defoon ñooy toog na la ah non waji nak jambar la nam yeggale nga infrastructure yi da ko tàmbali yeggale nga du dëgg nga ko ah madame Mbacke fe yeen la koy laaj yeen ñi nek diaspora bi kay xana war ngeen ma wax fan la xaaj bi dugg bu coow li ba mu jaxle rek nga dégg ba muy ba muy fast track fast track mooy lu gaaw noonu a déggoo ko bala nga bëgg moom mooy wax ñoom ay Amadou Hott ak yi dafa yéex nañ ko benn benna rek ñu foog ne ñun ay ngaaka lañ fekk ñun ñu jàppe leen ay dof gis nga li ngeen di ci remaniement bi cirque lañ ko jàppee cirque cirque au théâtre ce soir Abdoul Mbaye ba Boun Abdallah Dionne ñaata gouvernement la ñu amuñu fi juróomi gouvernement daanaka at ak genn wàll bu ne nga changé gouvernement bii ñu mujj am mooy sixième gouvernement lan moo ci soppeeku même habitude yi même te yi tey xam ne gisoo nga conseil des ministres man communiqué bi appel laa koy lire bo xolé peut-être xanaa nomination yi à peine lan lañ fi gis ay ministre yu soppé ay jabaru ministre yu soppeeku ay nit yu jëf gundaanda point barre à part le rien rien du tout le fait que Macky Sall conserve les ministres. signal ci ñun xam nga signalu lan la daf ñuy won ne li ngeen di wax ñoruma faalewuma scandale yi ngeen tudd sama yónne wu ci xam nga ku gis Abdou Karim Sall gis béjjënu Oryx ci kanamam ku gis Abdou Karim Sall gis béjjënu Oryx ci kanamam wala Abdou Karim Sall ku ne ko jàkk ko jàkk xool rek ci xel na yar na ay way kii de moo jël suñu auditeurs yi euh, kidnappé ba def fi dibu auditeurs ku ne jàkk man de loolu laa koy xoolee honnêtement way wi way wi du fay ku ne jàkk Cheikh Oumar Anne kuddu xalaat. béjjën ala kulli an tant que procureur gennewul rapport bi tek ko ci table bi ñu instruire ko mu jeex ba koy xalat béjjën ci kanam béjjën yooyu yëpp taw fi makina pat ba parna gi nga patam bi daf ñuy kokkali de non oh, mais laissez-les parler ces grandes gueules là les réseaux sociaux ah bon pourtant il da yaa toog man waaye nag fàtt naa boobu ay fiche lañ la joxoon nga teg ci kanam nga wax ne la magie du clic fera face à la toute puissance du clic et du flic la magie du clic fera face à la toute puissance du fric et du flic Abdou Karim Sall dibu orix lañ koy xoolee Cheikh Omar an kudd munu ci dara Mansour Faye sa goro baabu na ko jàkk xool covid 19 la ñuy xalaat Mansour ku ne ko jàkk xool ak ne eh soixante deux milliards Covid dix neuf a ngi nii Covid dix neuf ah, xam naa sax gars yi war nañ ko tuddee Mansour Covid dix neuf ku ne ko jàkk xool sa xel dem ci Covid dix neuf Mansour nga ne da nga jëlee foofu pour làq ko ci béton ba te foofu ëpp xaalis. gis nga lépp lu ñuy tabax mu ëpp xaalis loo gis Mansour nee na du wuy ji of nag du jox këyit yi François Ndiaye ñun nag wax nañ bay bëgg a dee yaay ma dem na nga maasu bul def dara maasu bu leen jox dara xaaral ma Macky ñëw fi ma wax ak moom fi lu lu ne lu ne am na fi voilà maanaam le pays se résume autour d'une table et de décision Hmm. defante ak ñom ba mu saf mom yo lay wax defante ak ñom ba mu saf Mansour ku ko xol na ko jàkk sa xel dañ ci covid 19 ah macaroni ceeb sunu xaliss Malik Sall ministre de la justice ku ko xol na ko yow fi ba justice dafa

scandale yu yëpp léegi ñun dañuy foog ne remaniement bi war na tax ñu fàtte ko remaniement bi Macky euh, remaniement taxul ñu fàtte na maasu dafa wut wuy ji af nag dafa war a dem jox ay këyit François Ndiaye léegi remaniement bi ñu ne wooy on va parler de Idrissa Seck on n'a rien à dire sur Idrissa dañuy xaar ba xam ban apport lay indi moom Macky Sall jox ñu un gouvernement politique ak problème yi nekk ci réew mi yépp man damay xool li ci gouvernement bi ci gouvernement man waaw mec Macky Sall mënutoon mënoon na bañ a def gouvernement ni ma xanaa ñim dàq moo tax eh foofu mooy cooki bu neex bi dara du fi bouger dama gisul ñen ñoko fi wara mëna mën bouger la te liy gën na Macky Sall ci politique la nekk fi mu nekk nomination Mahmoud Saleh poste directeur cabinet xam nga Mahmoud Saleh mosoo leen ko dégg ci lu jëm ci euh, ay ay ay affaire administration yooyu moom na toog di complot di manœuvrer yor nopp président président est-ce que tu penses qu'on va pas appeler Dieu ?»« Et président je vais trouver une réunion avec Dieu. »« yooyu moom yooyu rek manœuvre maanaam lu guddeeg bëccëg loolu rek lañ xamul Mahmoud ah man de Mahmoud dama koy xam ba tey jii wax fa dëgg neex yàlla musuma gis Mahmoud ñu ne yor na poste sàngam Mahmoud maa ngi ko xam ci coup d'état rab non xamoon naa ko avant euh, mu doon ànd ak Abdourahim Agne ci coup d'état rampant moo dem ministère de l'Intérieur, intérieur boobu Macky Sall mi moo nekk ministère de l'Intérieur, intérieur Idrissa Seck nekk boobu la ñuy wax dualité au sommet ne Idrissa Seck day diir mbokk Ablaye Wade ñu sosal ko ab ñu sosal ko loolu nag Idrissa Seck loolay dëgg ca biir ministère de l' intérieur ba Macky Sall nekkoon ministre de l'Intérieur, intérieur moom Mahmoud Sall dugg fa ñu théoriser seen coup d'état rampant dëgg yooyu génn. ne Idrissa Seck prépare un coup d'état rampant debout voilà xam nga xam nga ñu fu triant yooyu coup d'état rampant coup d'état debout coup d'état voilà kenn xamul dégg non c'est extraordinaire ce pays là da ngay ba si yàgg boo toogee seul di réfléchir laa lu ne la lii yëpp xew na fa yàlla nu yàlla doon sutura ñooñu nag ñoo fi nekk ba tey jii di intrigue di intrigue oui président on vit Aminata Touré et les trotskistes je vais être là Mahmoud Saleh nii la meloon ak Aminata Touré de comme nag léegi ñu mel léegi nag day teg Mahmoud Saleh fële euh, te dégg naa sax moom si hiérarchie A la man gaw mën a hiérarchie te waru mën a occupé poste bu A Babacar Gaye bëggoon ko nommer directeur cabinet foofu à temps Ablaye Wade ñu ne woon di hiérarchie A ko nommer directeur cabinet politique naa Zakaria moo nekkoon sax après xaw ma dafa naa su ma juumu Zakaria Mahmoud manœuvre du leneen léegi nag Macky Sall jël xale bu ndaw boo xam ne moom laa santoon mu faagaagal ma Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall Antoine Diome yóbbu ko ministère de l'intérieur dina jàng na torop moom moo jaay Macky mettre en place créer ba coow li ñu ne gis ñu benn mo ci bi di wax compte Karim fi compte Karim dar li wax vengeance mo vengeance tu fi am vengeance judiciaire moo am ci Karim parce que vingt cinq la ñu waxoon la ñuy topp ah Antoine Diom pilote ko ma leen di wax ne ñu bëri njott nañ ne toogaayu Antoine Diom ci ministre de l'intérieur du dara lu baax la nar a jur ci réew mi xeex la xale la lu ko Macky Sall sant mu defante ko waaye nag <laughs> xamal la ngay def rek bul xam détermination bu am ci nit moo ko liquideel Karim Wade moo ko liquideel Khalifa Ababacar Sall waaye tedd na ci moom it Antoine Diome parce que lu ñuy tudd yëpp am na beneen histoire sax Tony Silva yooyu yëpp ci biir hmm. Hmm. loolu moo lay won état d'esprit bu Macky Sall nekk faalewul scandale yi je fais ce qu'il veut Macky nu ko neex lay def quoi il n'écoute pas le peuple sénégalais li Macron wax yooyu moom nekkul ci loolu gestion n'est pas tributaire ci pulsion yi nga xam ne peuple bi mi ngi koy manifester te xam nga lu gën a doy waar ci gouvernement bi temps créé kan moo nekkoon ministre de la justice Aminata Touré Antoine Diome nekk créé Moustapha Diakhaté mo levé unité parlementaire Oumar Sarr ak Abdoulaye Baldé déggulé ma dé Moustapha Diakhaté en tant que président groupe parlementaire bu benno bokku yaakar mo levé immunité parlementaire bu Oumar Sarr ak bu Abdoulaye Baldé ndax wa créé ñoko sakkoon pour top len ci 25 dignitaires yoyu Antoine Diom mi bobu ma nga won créé léegi xam lu doy waar Aminata Touré moo ko sooke woon de léegi Umar Sarr dossier créé kenn xam xamul fan la mujjee moom dugal na ko ci biir gouvernement mu riigu ci biir gouvernement bi riigu waale ak Antoine Diome bi nga xam ne moo waxoon nañ topp Umar Sarr Aminata Touré mi nekkoon ministre de la justice mu daat ko ci biti loolu tax ma leen doon wax ne ne gouvernance sobre et vertueuse su naxee baay dama li ma leen wax déglu leen bu baax li ma def bi bu Gana, mook Abdoulaye Baldé dañoo lever une immunité parlementaire ak Ousmane Ngom dañoo lever une immunité parlementaire ci assemblée nationale parce que ñu ne créé daf leen wara top, nous ñu déclenché poursuite ci Abdoulaye balde ñu dëgg di xaar pour déclencher Omar sar waye amna amené lu doxul ci digënté Omar Sarr ak Amine Touré parce que ñom ñaar sey nañu am nañu doom bu jigéen ñu bari am nañu ci waxoon xawma deug la am du deug waye liñ japp moy Omar Sarr waron nañ ko poursuivre ñu ko poursuivre ndax assemblée nationale mo lebi immunité parlementaire Antoine Diom mi bo ma nga won créer tay ji Macky Sall jël Omar Sarr dugal ko jox ko mi na xawma lan jël Antoine Diom dugal ko te ñom seen dossier ma nga créer de dak aminata touré ministre de la justice xam nga su ma leen wax ne Macky dafa sadi lu muy def du est ce que yiw na jaadu na yoy non dégg len bax lu def dafa doy war lima len wax wax loolu dossier Omar Sarr ba tey jii ma nga créé Abdoulaye Balde tok na ma euh législature bobu bokul ba nekkat candidat ba duggaat bir assemblée nationale ba nekk président commission bu yor walu pétrole dossier ba tey hmm. jii jàngat leen loolu yëpp boo leen pare ngeen li ma len wax yeb ngén ngén réfléchir ngén xol réew fu mu toll tey dàq Aminata Touré Amadou Ba Ali Nguy Ndiaye Matar Cissé Boun Abdallah Dionne double maa ngi lire si livre Thierno Alassane sax Thierno Alassane nee na bu ñu toogee bu ñu toogee président bu toogee bu jege bi si àgg jóg sax Boun Abdallah Dionne day jóg bu toogaatee ak Boun Abdallah Dionne toog ñu ngi koy expliqué ci livre bi ma ne ko mujj naa métti de mujj naa métti trop. ah bu Abdallah jël peut-être que Moustapha Niass sajal ko assemblée nationale waaye maa leen wax léegi takk leen tàmbali na tey léegi ñu tàmbali di génne ay dossier jëm ci ñii ñu dàq Aminata Touré tàmbali na ndax agent contable ba nekk ca conseil économique social environnemental dañ ko dàq dañoo ji fi ne nekk nii ñu ngi jiiñ ne Aminata Touré dafa recruter ñu baree bari ci biir conseil économique social environnemental doon waajal boppam tontu na nag tey tontu na nag tey nag kenn mënu koo taqal dara moom Aminata Touré nente te képp kuy wax moom am na droit pour porter la plainte nga indi ay preuve ci la wax. kon comme tam lii waxoon nañ ma ko jour bi mu leen avant mu leen di mu ne ma ñu ñii ñëpp muy dàq wut na seen dossier toog di xaar xam nga Macky noonu lay def mais ñii ñu dàq Aminata Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba moom xaw xaw ma ndax dina xeex xaw ma Aly Ngouille Ndiaye moom peut-être moom ah Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñaar ñoo bokk seen Petro-Tim Aly am na lu mu xam de yu baree bari Matar Cissé Boun Abdallah Diop commencé nañ ci aminatu Touré gennal nañ ko dem na Macky ci beaucoup de bombes lolou lañ binda man ñom ñoko wax dé même Macky xam nu mi def dafa jang ci Ablaye wad lañ dañ wax boy xex bu ne beurat lo jott rek dooral sa way gis nga léegi nga gis la presse du palais ñi nga xamné euh di nga gis légui ay dossier yu ñuy génne nank nank di la expliquer pourquoi Macky s'est séparé de diw préparé nañu yépp di ko piquer nank nank di ko piquer nank nank di ko jox gaay soral la bu génne rek nga ah, papa la waxon parce que ñi ñëpp ne leen gënal dossier na naa bu abdallah mon ko gënal bu abdallah moom defe euh mais légui ñu kàmbat lolu nak ñoom bu ñu tàmbalee di wax xamal lan lan ci wax cooki da yéeni neen la woon yéeni neen la woon cooki leen seen biir parce que yéen ba ngeen ñuy tam dëmm ñuy toog di leen xool xam nga Macky chef la du leader chef la du leader du patron chef chef car chef te fu mu nekk day bëgg wane na moom mooy cheikh moo tax ma xaw a yërëm tuuti sa Seck xam nga gis nga makki bu xelmetee tuuti ne Idi da ko xam nga Idi moom léegi nga gis ko mu commencé di wax ne waaye le conseil économique social environnemental apporte sa pierre dans le te xam nga makki yooyu bugg makki moom c'est lui le patron c'est lui qui décide bu xoolee lu tollu ci tarfatul ay ni laa la wax ne ne Idrissa Seck mi ngi xaw a jël tuuti ci pouvoiram ba sénégalais di ci bàyyi xel léegi mi fon fe xaw léegi Idrissa Seck moom ci ci bigu Macky Sall lu wéeru léegi nag moom moo jël ay nitam li Moustapha jaxate wax rek ci ngor ñooñu ànd ak moom ba mu nekk président la mu dàq leen ñoo ñooñu de lenn rek laa leen wax ne leen hostilité yi boo leen bàyyee ba Macky Sall téye ko dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen boo leen réppul kaso ngeen ni mujjee kaso Macky tëj nit kaso du dara ci moom lu leer laa leen wax yéen ñii di cëgg ku ci kum ci ba xam ne nii teg leen kaso du dara ci moom lu leer laa leen wax tuuti dama leen xelal rek tëj leen kaso du dara ci moom ba pare dossier gis nga ay Antoine Diome yi mu yóbbu ay ministère de l'intérieur ñoo koy dimbali mu defar dossier bu ne këcc xam nga ne Malick Sall moom bu yóbboo dossier ci xam nga doo leen leer laa leen wax yéen yii di yii di génn c'est ba ngeen préparé bu baax a baax seen bopp li <laughs> dal khalifa sall muy baye magi Sall muy baye bayal ba magi Sall rom billahi bo len deful ndank jël sen matway magi Sall sen kaw la jëm sen kaw la jëm sa état d'âme parce que bir kër nga ko président ni dañ la bëgg yépp ni dañ la bëgg yépp fu nga war la lay président de la république du sénégal ah té nga bu nga defal len ko

dawal leen ñu xool nan ngeen di mbënd mi ak inondation yi nekk ba léegi tey ba mu verte ba deret boo leen di mujj licence pêche yii nga xam ne coow laa ñu kur ba ñuy napp ña ngay jooytu di wax président de la république géej yi amuñu luñ fa ndax bateau yi nga xam ne jox nga leen licence de pêche ay chinois ñuy xool noo leen koy réglé li ñuy saax-saaxe suñu géej gi suñu mool di ko jooytu ñu ngi xaar noonu lañ koy réglé xale yii jël gaal gi di mbëkk ñuy xaar lan ngeen ciy réglé du ay discours de jëf ndax walla fi ne na àndaaru wax kopp jëf da koo fay àndaaru jëf da koo fay xaarum ci gouvernement bi lu jëf Oui, mais nous pensons que nous devons mettre en place. xam nga mooy la mala la tegaloon ci Mansour fay muy muy récité yoo xam ne ka xam ne muy relance économique ñu ngi koy xaar relance économique ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar ba xol foo leen ci jëm léegi Macky Sall ne woon na dossier yu bëri day can boo xoon koy Amadou Wa doxee foofu mën léegi nag comme amuñu coordonnateur de l'action gouvernementale ñi ngi xaar te yéen a ngi waaj euh, assemblée nationale ci boobu tamit ñuy xaar Idrissa Seck le nouveau soldat le nouveau soldat de Macky Idrissa ya, Seck ah, lu nouveau soldat de Macky ñu koy xaar ban apport da na a indi ci réew mi parce que nee comme réew mi soxla dañu nekk ci crise ku nekk war nga indi sa pierre waaw léegi nak ñu tok xaar ban apport lu na a indi ndax dina am lu bees ñi sentir ci mbir mi waye nak li am ba dess dañu war ci baye xel moy nañu jiital réew mi ci la ñuy def parce que man li ma gis nii ñuy gundaa ndaat ñu ne dañuy séddoo kon war nañoo dellu si waat xel yi bu baax a baax a baax ñu nag la famille ñu nekk magum xamoon naa magum waxoon naa ko la ñuy doon beneen bi xam nañ tamit Macky c'est un gros sentimental du gros sentimental sax en fait du yërëm en fait passer mal express yo na wuti ci quoi écoute mercredi mu ñeu génné nomé wat ay nit ministre d'état nomé fi génné fay parce que yo na wuti yo yow wuti yo ci ça son problème le cadre de ses soucis ay du ay gestion ah, ku mëna jël ay jabaru ambassadeur jox leen 500000 te xey ñu ko ñu yépp jël nit casé ko dara ci yow donc euh, xam nga nag allah suba dina len jox suñu chronique ngeen déglu ko chronique bi eh ngi jëm ci protocole de l'Élysée bu neex <laughs> non protocole de l'Élysée dafa neex quoi non mais non tu te rends compte que véritablement complexe bu am président Macky Sall da doon saraxu pour ñu jox total ay teenu pétrole pour lan tegu ko fenn mii ci livre bi non c'est extraordinaire nekk na lu doy lool lool damay wax ne billaay ñu lan la ñu def yàlla sax jun ma wax kon incha allah suba dina leen jox euh, chronique bi ngeen déglu ko mais laata loolu tey ci guddi mën ngeen seetaan Moustapha Diakhaté ah incha allah maa ngi am na keneen koo xam ne maa koy

mi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am mooy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque troisième mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel su muy diir mooy mat bu mujj hmm. donc loolu war nañ ko dégg bu baax. Dakar Matin. fi doogati ñaari mandat kese. Eh, eh, Abdoulaye Dione su ba ne man damaa bëgg troisième mandat modifié mu ne loolu dañ koy verrouiller ci constitution bi def ko clause boo xam ne kenn dootu fi inu abadan kenn dootu ko fi mën a changé loolu mooy li président gëm. Dakar Matin. Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse son troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas vu et notamment l'article 27 qui dit très clairement, nul ne peut exercer plus de mandat. Le projet de révision de la Constitution est très claire Nul ne peut faire plus de mandat est Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se pose la plus du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation On se pose la question qui est Macky Sall, président de la République en 2011 Est-ce qu'il est président de devenu président de la République en 2019 On dira oui. Les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. D'accord, Matin.

jàpp ne réew mi kenn mënatu di toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi deux mille seize wala loi quatre vingt onze dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj mais de toute façon kenn mënu mënul développer ñaari mandat yu tegal loolu constitution bi loolu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix neuf lay jeex ci coobare suñu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu deux mille dix neuf su boobaa man pare naa ci munoo def lu ëpp ñaari mandat yu teg en man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ mu des si mbir moomu loolu dama bëgg te bien